waye fi ni ne sa xol neexna trio ba justice ba yenguna tribunal ba yenguna man de wax deug yalla li xew ci justice bi saab xol sedd na ci de saab xol sedd na ci tout trio ba trio bi won ci dakaru trio ba yóbbu nañ ko tambakunda ñom ñatt ñaga tambakunda Abdou Karim Diop mo daan dem sos pas Mamadou sek wala pass ma Maham jalo, ñu pass dugal rebeus depuis 2021 ak léegi so <laughs> gisé ñu ne len affecté nañ len Tamba nak ah am siis mom dak ko da yombut <laughs> waye ñi ku ne xam na ni dund gi ndon dund neex na xeetu neex goo xamanteni si ne len dem leen Tambacounda dañuy jéem a <laughs> dem liggéey bi rek liggéey moom foo ko mën a defee rek baax na <laughs> man daal trio bi ñu yóbbu Tambacounda man kontaan naa ci wax dëgg yàlla. dëgg yàlla di toog di continuer naan Abdou Karim Diop mooy procureur ba léegi Maham jàll premier cabinet Mamadou Seck deuxième cabinet saab xol neexut woon waaye fi ne nii saab xol neex na trio ba. <laughs>